jalo jaloore ji nga def dafa rëy mu amoon ñu ngi fi daan wax si réew mi ku def du rëy am du rëy yax sa équipe lii ñuy ñaan yal na leen jig gaa ngi wax ay fëgga dënn fëgga dënn doolee koy man yàlla ni ngeen am doole joo xamante ne te si lii lay jóge ngeen fël ba abadan Afrique rek buñ sa yemoon te yow nga def jaloore ju toll ni yax sa équipe Sénégal yëpp kontaan nañ si yow fu waay toll mu ngi lay ñaanal dañoo ànd ànd bu rafet. Hmm. lëkkaloo pour mën a def léegi li ñu bëgg rek ngeen ñaanal ñu. Hmm. ñu mën a continuer ci lii. parce que def ko ba pare nag taxaw. Hmm. loolu moom ñun jubluwuñ ci. na ñu yàlla jàppale rek. ñu mën a continuer liggéey bi malade yi ñu leen di mën a jàppale ci parce que dialyse. comme ni ko jaraaf kan waxee. xam nañ ne dialyse metti na. su fekkente ne ñun am nañu ay matuwaay pour mën a jàppale nit ñi. du ñu wut lu dul loolu. loolu rek dañ ciy jublu équipe laa jiite te équipe bi su nanguwul woon hmm. du ñu dem fenn